jàpp julli ñaari raka ne alhamdulilahi rabbil alamin yaa baat ñaar at ngeen ànd euh, depuis nag yàgg na trop euh, mën naa ni 2010 la suma juumul mhm. ba fii ñu ngi def depuis Mermoz Sacré-Cœur waaw Mermoz Sacré-Cœur ñu ngi ànd amul benn yoon bu mu tege tànkam teggi maag moom ñoo doon bokk oto ah. oto bu day toog ci côté droite ma toog côté gauche après déggante ngeen téléphone non depuis mois de mai ah, yaakaar naa ci laa gëj a ci laa gëj a toog ak moom ci laa gëj a toog ak moom gëj a wax ak moom dàq bi tamit dañ ma ko notifier rek woo ma building communal jox ma kayit bi mais ba léegi bind naa ko woo naa ko ñu ne ma ma laajte ñu ne ma dafa tukki bi ma jógee màkk ma bind benn texte envoyé ko ko comme si ne ko bon dem naa màkk ba ñëw situation yi xaw na jafe léegi dama bëggoon bu la yàlla jëlee ci sa voyage bi boo ñëwee ñu toog waxtaan defal la compte rendu jotuma réponse parce que mission nga demoon. Ah, mission laa demoon ci mairie bi mission laa demoon ci mairie bi. Hmm. Euh, donte sax mooy daataana dem doon nañ demander ordre de mission mais gis naa ne amu ordre de mission mais comme que jaamu yàlla la jarul ordre de hmm. mission ordre yàlla dem naa yóbbu naa 64 personnes ñoom ñëpp dem nañ màkk dellu si te daf may faral te du ren rek daaw. daaw maa ngi ko séqoon ak benn xaritam benn xaritam xaritu benn bakkanam ren ma jël samay responsabilité jëfe ko parce que nag duñ la jox benn marché boo xamante ni da nga ko war a gere ngay dem di ñàkk fayda ay ñu ji tekkiwul dara di dugg sa diggante ak yenn yi di wax dugguma ci loolu moo bi loolu jeexee ñëw naa notifié nañ ma ni dàq nañ la dàq waaye mënoon na rafet parce que xeex bi dañ ko ànd xeex xeex dañ ko ànd xeex mënoon nañ ma sax avertir bind ma lettre de lu ñu koy tuddeeti demande d'explication euh, bu fekkee ni dañ ni la kii kat dafa détourné xaalis wala ñu ne la kii kat dafa dafa ñëw dafa ñëwul ci postam mhm. mais la la la li gën a simple te boroom xam-xam di ko jëfandikoo ci administration bi muy liggéey bu fekkee ni xam-xam mu ngi ci yow dañ naan yónneel leen ma ko lettre d'explication mm-hmm. bu fekkee ni sequ leen dara sax wala sequ leen wax mais ki nga xamante ni yàlla dogal na suba ba ngoon yéen a ngi waxtaan tëdd rek moo leen di teqale mais bu buñ la waxee dara ci moom woo ko ne ko lii wax nañ ma ko ak lii ak lii ak lii mm-hmm. nan la demee mu jox la expliqué ay version bu version bi bu la satisfaire alhamdulilah rabbil alamin bu la satisfaireul mais nga ne ko ah lii kat wax dëgg yàlla man satisfaire ma bon maa ngi jël li ma yoon may ci yow mu dama xëy rek. weer wu de ah le 30 le 30 laa wax de ngay xëy yaakaar ni da ngaa war a dem sa banque dañ la war a woo ne la sa salaire dugg na la 30 boobu ñu ne la dàq nañ la nga laajte ñu ne la amuloo fi salaire. weer boobu viraluñ la. gis nga weer boobu laa gën a kontaan ci weer wallaahi bi sarfil xuraan hmm? boo seetloo màggal gi mu ngi doon xawma la trente wala le vingt neuf wala la le trente et daal. Hmm. ci la trente bi laaj jot note bi. le premier woo naa suma banque ñu ne ma kenn wiireelu la dara mhm. yama daan am foofu yëpp tabarkàlla gisatuma ko ma sant yàlla ma sant yàlla bu baax a baax xam ni wërsëg wi yàlla moo ko dagg foofu mhm. waaye détermination bi ak yéene bi mu ngi des ci biir te incha allahu dana mottaliku mhm. waaw tôt ou tard xam nga yonent bi dafa jóg di def fatu Màkka mu mu ñàkk am jullit yi di xaru naan lu tax amul waroon nañu forcer mu ne leen dal leen ñu songaat yàlla ubbil leen buntu mu ne leen ida jaa nasrullahi wal fatu wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fa sabbix bi hamdi rabbika wastaxfirhu loolu mooy sensu ida jaa wastaxfirhu ndax innahu kaana tawaaban parce dut bi jullit ñi amoon moo tax mais mairie de dakaar dana defaru incha allah dana defaru dana defaru mais nga jóge fa Abbas jóge fa ñeneen ak ñeneen jóge fa. Mm-hmm. loolu ci ñoo xamante ne àndoon ngeen moom ak ma xeex ba am li ngeen di am tey jii. Mm-hmm. loolu nu mu leen di def booy xool mairie bi. non defuñu ak li ngeen si daj. xam nga tey mu toog fi mu toog xam nga tey xam nga tey bu ñu ne woon Abbas jóge na fa. Mm-hmm. dafa dëpp kees. wala ñu ne imaam Khalifa jóge na fa. dafa dëpp kees. ah kon ruusuloo nañ Ousmane Sonko kon rus bu dee Abbas rusloo nañ Ousmane Sonko bu dee xalifa de même rusloo na Barthélemy Toye Dias mais man ba léegi kenn notifié wu ma man personnellement man personnellement Abbas dégg naa ko ci mbedd mi nii ñu ne euh, dafa am wàllu parité wàllu parité bi wàllu parité bi bugguma ci commentaire parce que xewoon na loolu il y a deux ans mënoon nañ ko teg ci taabal ji mais dañu bàyyi ba deux ans yi romb ñu soog a ñëw teg mais bu dee li jëm ci wàllu imaam xalifa li ñu bind ca kayit ba mooy abandonnement de post mais loolu nag ki ko def war nañ ko wax ne ko bind ko lettre ne ko danga abandone sa post wala ñu woo ko ne ko ah lu tax nga abandone sa post mu mën leen a jox version bi ak explication bi. yow jéem ban attaque man may attaqué décision yooyu ci justice non yoon may na ma ko sax inspection du travail mais kon doye di la ci man mhm. wërsëg boo jàppee ne tu as été mais loolu xam nga kan moo koy def. Mm-hmm. tey ma dem banque lebi fa xaalis xaalis boobu mënatuma ko fay banque sañ na attaqué parce que ci ci compte mairie laa ko lebe sañ na attaqué mairie mm-hmm. mais man may attaqué pour poñe xit yu ñu ma doon fay ah te ma xam ni système bii ñu dëgmal yàllaa ngi dogal ni ñaari weer leen fi dese mais kon sama doye di la mm-hmm. Khalifa Ndiaye ngay dem ak mairie de Dakar waxuma Barthélemy de. xalifa Ndiaye ngay dem ak mairie de dakaar ci yoon kuy xalifa Ndiaye ñu ne imaam xalifa nit ku simple sax duma dem ak moom ci yoon ci problème mu xaalis wala mu tooñ ma su ma ko tooñee ne ko jéggal ma bu ma mayee occasion bi mais fii ñu toll nii Moussa may jóg naan may jóg naan maa ngi dem ci yoon. yu bëri su wax nañ ma ko soulevé nañ ma ko ma ne leen noonu non non loolu ak doyadi la parce que dund naa nag ba romb cinquante ans. dund naa ba romb cinquante ans baobab mille neuf cent vingt deux laa fi ñëw dindi ko ci say at. juddooguma kay. Ah, moo tax ñii toog di xalaat am na ndeysaan ñu toog naan ay est-ce que dana dana nekkati ci këram. est-ce que nangam nangam est-ce que du ñàkk otoom est-ce que ma ni leen oto bii carte gris bi Xalifa kenn Ndiaye ci nekk. kër gii kenn fayaluma ko sama ñaq moo koy fayal. leneen lu ma am ci sama wërsëg ku dund cinquante ans cinquante ans boo ci dindee mille neuf cent quatre vingt ba léegi maag Bart ñoo jàkkaarloo woon kër tali moo doxoon suñu diggante. ñaar ñaar ñoo jàkkaarloo kër du tey. mais kon kon du tey démb la. moo tax suñu bëggee ma wax ci lu ñaaw mënuma ko. xaw ma ko mhm. xaw ma wax xaw ma wax ci nii lu ñaaw taxu ci média di wax nii lu ñaaw mhm. xalaatuma ko. xaw ma ko bu ma ko xamoon sax duma ko def. tey jii li daal si kawam condamnation bi ba ñuy xalaat mu génn assemblée nationale ba ci euh, ñàkk mairie bi bon moom nee du ñàkk mairie bi am na wax yu su commencé jub loolu nu mu lay def bi ñu ko gisee. waaw de de loolu moom xam nga nit moom ala kulli xaalin man day moom sañ na yéene kenn safaan mais man sañ ma ko yéene safaan parce que sama réputation mayu ma ko yàlla na ci yàlla génne. ci jafe-jafe yi waaw. foofu nga ci yem. jeex na amul leneen. Mhm. amul commentaire. doo gis ne fayonto am na ci wala lan moo xew ci diggante ma nguur gi bi ñu daf ko jege ak yu ni mel. non fayonto bu ci amee moom xam na. Mhm. bu ci amul moom xam na parce que dossier bi du du du du kañ la 2000 lan. 2011 2011 la ba léegi def na ñaata fukki at ak nangam. lu ci am xam nañ ko lu ci am xam nañ ko. fi la ñu fekk ñun. Mhm. xam nga ci lu bëri tamit. fi la ñu fekk. <laughs> mais loola loo ciy wax lan nga ciy wax décision de justice ñoom nee nañ nañ ko respecté na ko ñëpp respecté. nañ ah lii am am. du ñoo ko wax ñoo dem bay tuumaal Ousmane Sonko naan dafay woote gatsa gatsa te Ousmane Sonko mosta woote gatsa gatsa ñu ne nañ respecté décision de justice yéen wuñ kenn lenn. Eh, eh, nañ ko respecté rek lu ci justice wax rek waaw ñun ba mu koy dal ak yëpp ñu ngi ci moom ànd nag moom ci métit weeg tiisu di ko fekk si di ko fekk si biir kasu ah, ah mais c'est normal c'est normal parce que delluwaatal ci vidéo yi booba ñi fiy rey làmmiñ di buuxante ci wetam kenn ñemewu ca dem ci réseaux sociaux yi di wax léegi la neex parce que ñu bëri dañ jàpp ne sew Barth nga gënoon jege mais moom laa gënoon a jege kooku amul luñ ciy nëbb. gënoon jege ko Pastef. man Barta tax ma sopp usmaan Sonko. Hmm? Barta moo tax ma. sopp moo la découvrir loo Ousmane Barta limi moo ma découvrir loo Ousmane Sonko. ci biir këram ak ci biir oto moo tax ma sopp Ousmane Sonko. et alors keneen ku ma am ci moom ci wàllu politique ma gedd ko Barta tax ma gedd ko mën naa citer turu Ousmane Sonko. mais moo tax ma sopp Ousmane Sonko parce que qualité yi ci Ousmane Sonko yëpp moo ci jiitu ci wax ma ko. ngeen di animé tàggu ba pare nag mu gëstu ko gis ne moom li mu wax mu ngi ci biir mu ngi ci Ousmane Sonko looy def dañu fekk Jaafaru saadix Jaafaru Saadiq dul janaaxay ni ñu ne ko waa lu tax nga sopp yonent bi lu tax nga ciy rey sa bopp nii mu ne leen yéen a ma jaay yonent bi. ndax dañoo amoon lu dul ay bandi ay wëyu ay vagabond di àddu kalpi nit ñi di def lu leen neex di lekk medd ah, ñuy dagg ñuy dagg ay relation yoo xam ni démb la tey soog a ñëw ñu toog ba jekk benn bis moom mu ne cëpp génne lool yépp ci ñun gis nga maa ngi lay waatal ci yàlla ne Bart bu àndoon ak Ousmane Sonko ba fii ñu toll da dégg nit ku rëy ci sénégalais yi Barthélémy Dias doon waaw da dégg nit ku rëy ci sénégalais yi. dana yor cër bu rëy ci sénégalais yi mais àndandoo. lan lan àndandoo la àndandoo lay doon souvent. noo ëpp la xam-xam. woy yaa ko yaay de Dakar yaay nangam na c'est bon c'est bien bon Ousmane Sonko da koo nangu. da ko jàppale di début à songu xeex bi. Mm-hmm. jël ko à main téye ko mais Ousmane Sonko taxaw na fii ne. mairie de dakaar kenn mënul tere Barthélemy Toye Dias toog fa man xam nga kañ laa ko commencé wax six mois avant laa dem seen web ne leen mooy toog ci fauteuil bi mu neex leen mu naqari leen nañu dellu ci vidéo yi ñi muy àndal nañ nañ nañu wax fan la ñu waxee lu mel noon ñun booba ñu ngi dox maison par maison ah jàkka par jàkka marché par marché mais dox yooyu am na leader yu doon ànd ak ñun gis nañ ni leen gaañ yi doon clashé benn baat rek nga doon dégg mooy Bart ñu ngi sa gannaaw yaag Ousmane Sonko fexe leen ba bu leen ñu trahir lii nga daan dégg ci marché yi lii nga daan dégg ci jàkk yi lii nga daan dégg ci garam place yi. fexe leen fexe leen fexe leen fexe leen ba bu leen ñu trahir noonu li nit ñi wax laa wax waxuma waxu Bart fexe leen ba buleen leen ñu trahir may may def benn lecture bu jéggi dayo dañu dugg marché HLM.